am loo xam te ne dafa nekk suñ jafe-jafe ñun waa association nationale Allo Dakar ndax su fekkee ñoom ay citoyen lañ nekk ci réew mi bëggal suñu bopp dara ki nga xamante ni mooy président de la république waroon taxaw ci ñun sàkku lépp manal ñu ko ñu ñuy def suñuy pexe ak suñu man-man ba amal suñu bopp ñiy dugg fii jënday oto ñooy jaar fee lépp ñi seen yaay tegg ay nat jën seeni oto ñu di si liggéey liggéey boo xamante ni bu mucc ayib la ci askan wi yëpp mën nañoo seede loolu ñu am ay jafe-jafe yoo xamante nii depuis le premier ba léegi nii say boo ñu ni ëpp na trois cent véhicules yoo xamante nii ñu ngi LG mbaaw ñu téye leen ca xamuñ ci ban am lañ leen téye. ça fait mois de cela chauffeur yi fu ne la ñuy daw pour am lu ñu yóbbu seen ay kër lu tax. la capitaine Malick Faye bi nekk yu Mbaaw mu téye lu mat 300 véhicules fourrière ko te buñ koy fourrière ku ci nekk dañ la joxoon immobilisation wu 4 jours ñu yaakaar ne bu 4 jours yu jotee dañuy dem fay ay pénalité ñu delloo la sa oto depuis lors ñi ngi téye oto yi boo fa demee daf lay dàq ci biti amuñu kenn koo xamante ni mën na faa taxaw wax ak moom mu dégg ko non boo ci waxee ñu ne aussi état la. ñun état la ñu adressé muy le président Macky Sall ñun ay sénégalais lañ comme sénégalais yëpp ñun fii la ñu juddoo yaroo fi màggee fi oto yii nii ñu bañ a reconnaître tey yow say campagne ci ngay loué ñeneen ak ñeneen ci la ñuy oto bi besoin population bi la sénégalais yi ñoo ko soxla ñun li ñuy contribuer ci économie Sénégal par jour ëpp na 200 millions kon donc ñun lu jëmale réew kanam ci lañ nekk. mais nekkuñ ci luy delloo réew ginnaaw lu ñu bëgg nag ay jeunes lañ mën nañoo wàcc ci tali bi def comme ñëpp ni ñuy def mais duñ ko def parce que nous sommes conscients donc nag dinañ jooy fu ñu war a jooyee def nañ point de presse la fois passée déggoo leen ñu dem nañ ci kilifa diine yi déggoo leen ñu ñun nag am nañ jooleet ay xale lañ te ragaluñu prison parce que ki mën a jël sa oto tëj ko sa waa kër di la xool amoo loo leen jox kooku tëj na la prison. lii nag dem tëddi kaso wala dee moo koy gën benn instant. bu amee ay doomu Sénégal yoo xam ne ñu ngi ci jafe-jafe ci nii wala ci naa jafe-jafe boobu buñ ko saafarawul ñun ñëpp dinañ ko dund ay père ay soutien de famille wala ay boroom kër lañu wala bu ñu nekkul boroom kër kër googu bu kiin tàkkee ñoom ñoo tax mu takk ndaxte ñoom ñooy indi dépense. ñooñu boo leen xañee dépense ah bu ñu duggee ci cagatu yaa leen si dugal jigéen yi nekk ci kër yooyu bu ñu duggee ci cagatu yaa leen fa dugal bu ñu duggee ci njaayum yàmbaa yaa leen fa dugal seen jafe-jafe bu leen tollee foo xam ne ñu ngi quinze te ñëpp xam nañ ne quinze ak yeneen baaxul ci wér-gu-yaram yaa leen ci dugal bu ñu duggee ci agression yaa leen ci dugal donc waaw dafa mel ni état du Sénégal allo taxi allo Dakar yi mu arrêté te toll gën saa néew ci ñetti téeméer diggante 1er mars ak tey dafa mel ni mu ngi xañ ay junni ak ay junni doomu aadama ndékki añ ak reer. bu dee dafa am ministre yoo xam ne dañoo am ci taxi yi am ci oto yi am ci transport yi. ñu bëgg leen dooleel loolu du dëgg du yoon te mënuñu ko seetaan bu dee dafa am directeur yoo xam ne wala waa APR yoo xam ne dañoo am ci oto yi wala ñu ngi waaj a dugal oto ngir fekk fi place ñu arrêté oto yi loolu du dëgg du yoon te mënuñu ko seetaan état état wu ñëpp la du état wu APR du état wu ministre du état wu directeur dama bëgg a wax ji leer. ñeenti fan lañ leen waxoon ñeenti fan yi mu ngi bëgg a mot ñeent fukki fan fii ak semaine bu ñu leen delloowul seen oto ñun ñëpp dinañ toogaat waaw bu dee ñaari junni ndaw ñu ngi yëngu ci alo dakaar yi président Macky sàll boo leen delloowul seen oto fii ak ay fan diñ ci xam. fekkee dañuy xañ ndaw yi dépense xañ ay góor yàlla yu mel nii am ay soxna am ay rakk am ay waajur. ñu leen di xañ depanse deuxième vague dina fi gaaw a amaat te deuxième vague boobu buy am ak ñoom ak ñeneen yu mel ni ñoom ñun waa FRAPP dinañ ànd ak ñoom.